Macky Sall loolee la xëyee histoire couple politique boo xamante ne ji kon seenub sëy tas na ñi ko dund am témoignage yooyu wax nañu ko ci l'observateur Eumeu Sène mi ñu woolo woon ca kanamu enquête kat yi ak déclaration bu mu def ci seen kanam jëm ci Fatou Ibrahima Touré loolee l'observateur xëy na ci dellu siwaat dikk nag ñu nit moom l'observateur eh, ci wàllu basket ak eh, ñoo xamante ne ji daal seenu tur moom basketub Sénégal jàpp na ko bokk na ci njabootu Puy Jaawara Jaxate Si ak Njaay ñoo di ñan l'observateur dem na ca ba jeex l'observateur dikk ñu nit ci Sandaga ak lañu ne woon dañuy daanal batiment ba foofee ndax màgget ak yàgg ak wóoradi gu mu am docteur Adama Ali Pam di historien archiviste euh, mi ngi euh, paléographe mi ngi leeral ci l'observateur ana li tax toj ko du yombe noonu nee na taxi yi ñooy protéger Sandaga Touba xew-xewu jamono bu yéeme bu fa am benn waay boo xam ne dafa am kenn ku ëmbal rakam ngir mu yu tax moom it mu dem tëdd rakki kooka l' observateur ko bind le quotidien di kër ñun ci covid 19 bi ni muy lawee fii ci Sénégal nee ci ndakaaru ouest fa la kon feebar ba gën a yéege la tribune dikk ak ñun ci Moustapha Cissé Lo mi ñu dàq ci APR dàq gàk la ak fa ñu ko jaarale moom lay leeral keneen kookit mi ngi ci ñool ñool grand place nee nañu moo di coordonnateur national bu COJER di Moussa Sow nee na dañ ko dàqee ci yëmbal nord grand place moo bindu lu ni mel libération dikk ñu ñun ci trafic de drogue ci ci Gueule benn waaye boo xam ne docteur Fall la tudd ab cabinet la yor cabinet dentaire waaye la muy jaay ci drogue moom la muy wekk ciy bëñ les échos dikkee ñun ci Moustapha Cissé Lo mi ñu dàqee ci biir APR assemblée nationale weddi ko groupe parlementaire bi te mu di groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom it ci dàq ko ci la ñu jëm euh, suur soit dikkee ñun ci moom Moustapha Cissé Lo ak ak wér-gu-yaramam ci waxtu yu ñu génn nee na bari nay lees waxul yu ci am am na ñu ne daal euh, dafa mujjoon sax amee kiris ba ñu yóbbu ba ñu woo ab fajkat waaye loole ak ak njabootam weddi nañu ko nee nañu seen bàyyi lu wokkutub dërëm wokk ko Vox Populi dikk ak ñun ci commission discipline Bougane bi nga xam ne dàq na Moustapha Cissé Lo ci nan la ñu ko dàqee yéenekaay bi moom la xëy di leeral enquête yéenekaay li mu xëyee mooy li ñu jëlee ci réew mi poste premier ministre nee na li am ci réew mi mooy la ñu góob rek la ñu gar que góob di Macky sàll moom lay gar jamono ji di koy firndeel journal bi nañu ñàkk premier ministre dafa wóorul ne coronavirus bi ñëw na gouvernement bi di làmbatu boole ceekit lu mu wax génnaat ca euh, na mu waroon a doxee doxinu ci gàttal daal jëlee giñ fi jëlee poste premier ministre li mu yàq moo lu muy defar ci ni ko yéenekaay bi di enquête xëy eh, jàngate témoigné dikk ak ñun ci Moustapha Cissé Lo mi mu ne yàggee nay saaga waaye li tax saagaam yi weex ko xatt moo di dafa laal laalaake yàgg na di daggal nit ñi saagay ndey waaye ba mu ca laalee Marème Faye Sall eh, ca la laal tooke moo taxit eh, le fou du roi perdu par la reine mooy li ñu bind ci xëtamu njëkk la Sénégal dikk ak ñun ci Cissé Lo mi ñu dàqee ci APR ñaari plainte ngi gàlle ci ndoddam yéenekaay bi nañu mi ngi ci guddi gu bët seetagul moom Moustapha Cissé Lo Sud Quotidien it Cissé Lo la xëye xëy ñu xamal ne jamono ji fa mu toog tëb ju weesul ci moom modification règlement intérieur mënees na ko lijjanti ngir dootu xandati sax assemblée nationale soleil national li mu xëy modi modification loi finance initiale nee na budget boobee xoolaat nañ ko càmbaraat ko ba tënk ko ci 3144 milliards de francs CFA mooy li mu bind ci xëtamu njëkk record ki mu xëye moo di Kalidou Koulibaly football katub Sénégal buy football fële ca Italie nee na fële ci Angleterre gaañaa ngi koy xëccoo ngir bëgg mu ñëw football yi leen Manchester United ak Manchester City kenn amatul jàmm li ñu bëgg mooy Kalidou Koulibaly ñëw footballal leen stade mel ne ku koy dëggal xëy na ñu xamal ne Pep Guardiola may entraîner Manchester euh, Manchester City nee na bu dul Koulibaly buñ ko indil keneen euh, xëy na ñu xamal it moom stade ne daal euh, waa Liverpool football nañu téeméeri max ak juróom-ñeent juróom-ñetti defet la ñu ci am Fall jeexalee ak sunu lamb mi dikk ak ñun ci revanche bu Balla Gaye contre Gris Bordeaux 2021 la ñu koy bëre yenekaay bi nañu euh, Balla dugg na ci loo xam ne lu ne mën na ko caa fekk maanaam risque bu rëy daal lay encourir. waaw mu ne risque. bu rëy lay encourir. maanaam daal lu mu dugg daal. lu ne mën na ko caa fekk li gone yi wax ruux nga siiru. mu ngoog mu xam ne euh, Mouhamed ci kanam.